bokki jullit yi bokki taalibe yi ñi nga xam ne noo bokk liggéey bi Cheikh Mouhamadou Bachir mii mooy yor baatu jottali gi ak sëñ sëñ Mouhamad loo mii nga xam ne moom lañ dénkoon wattuk dëkk bi ñu ngi nii teew wax ji nag dafa war waaye ku sañoon booy wax wax ji am wax bi wax waxu lislaam waxtu wu ne noo ngi ci mosuñu cee noppi loolu lépp nag mooy nekkal sëriñ bi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 mi ngi fi la ca nag la koy mottali mooy bëgg lu baax rekk te yàlla tax di jëf lu baax rekk te yàlla tax bañ lu bon rekk te yàlla tax daw lu bon rekk te yàlla tax loolu mi ngi fi junni at ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak benn ah du loolu la mu seesu la noppi waxuma nag li nga xam ne moom mu ngi ci téere yi lépp ngi ci téere yi te it ñi nga xam ne ñoo fi nekkal ñoo wutu yonent yi te sëriñ bi kenn jiitu ko ca wax na musta noppi ngir bëgg gindi nit ñi gindi nit seen boroom moom mën leen jëmale seen boroom bind na it ba loolu lu ñuy laajte nekku ci li ci des nag gannaaw dogalu sa borom moo xam la muy dogal yoonu kenn nekku ci moo xam li li li li li li war a def moo xam nam koy defe moo xam li tax mu di ko def loolu lépp mu ngi mu ci yàlla amma jaam ñi nag ñi nga xam ne dañoo topp la lislaam digle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 jullit bu ko def ak sa borom taalib bi sëñ bu ko def yaag ya ya ya ba tey yaag sa borom ndax sëriñ bi mosut a juyoo ak boromam la borom bëgg rek la borom digle rek moom la digle la borom bëgg moom la digle la borom tere moom la tere.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 jeexalu bundam li mu fi nekk ci loolu rek la nekk la kon nag loolu dëgg la faaw nu tàmbali cosaan cosaan li waaye li ci am solo moo di eh, sëñ Béthio dëgg la ci lislaam la juddu ki ñooñu Sëriñ Tuubaa yi la boole woon boppam rawatina jox bi mu boppam jox jox bi mu jox gi mu jox boppam sëñ Saal sëñ Saaliwu kon waxoon naa ko njaboot gi muy sëñ Saaliwu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 na nekk leen ci mbooloo ma ku ci ànd ak yéen alhamdulilah rabbil ku ci ànd ak yéen sànni leen ko ci sën ba ci àll ba kon li nga xam ne mooy xew mooy li xew coow li fa la bari na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 soxna Socé fa fa ma jëkkee wax ak moom ca Njaareem ca Tamxarit ga wax na ba àggal wax ce ne ñoom ci ndigal la ñuy wéy ma tontu ko ba ma ko tontu dama ko ne. yaa ko ma ne ko ma am na loo xam soxna si wax léegi moom nee na ci ndigal ngeen li la ñuy ma ne ma ne ko nag ndigal ak tere nag ñoo ànd mosuñu duñ tàggoo laa cee mën booba. bi mu dellusee fii.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 ginnaaw nun ginnaaw jees lisaan amatul jees lisaan bu am na loo xam ne bu xewee dañ leen di rey wala ñu fa wala faagaal leen ko ak ak bomb waaye loolu yàlla soppi na jamonoom yàlla soppi loolu loolu loolu nguur gi rek ñoo boobu sañ-sañ te ñoom bokku noog ñoom ak jublu ak doxin ñoom doxin adduna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 te yàquñu dara ci lim lim nekkoon suñ borom far ko ba ci ba ba kon moom moomee di sëriñ bi ba mu jóg jëm ci boromam woo nit ñi bëgg leen a gindi jëme nañ seen borom bëgg na woo ma jëme leen seen seen seen borom ca loolu rek la ma sa nekk waaye ci loxo yi loxo loxo tubaab yi lan lañ nekk la nekkoon kenn yàqulu ci sa morom daa ñee ña nga ci lañ lañ doon def ba léegi moom it mu ngi ci lem nekkoon ba léegi kon eh, daal soppi ko fi ah, ah ñu jàdd yoon wa fétal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 yàlla daa may liberté jàmm yi ci maanaam ci maanaam ci saa si fii ci àdduna ma dafa mel ne dafa may dafa liberté lu waaye neex def lu wax ne mel loolu yoonu kenn nekku ci ñoo yàlla ñoo bis ci ba yoonu kenn nekku ci ku waay lu waay neex mën nga ko mën nga ko def lu waay neex mën na ko mel liberté am na ginnaaw kenn reyatul kenn wax a fi des te wax ji amul benn njëriñ ah, kon kay ñëpp ñëpp liberté nañu waaye nag xàll bi day ngi fi yoon waa fi goudron ngi fi goudron baa ngi fi bu yaay ñëpp waaw ku bëgg dem jaar ci mën ngaa mën ngaa dem ama ku jaar nag fu la neex féetal di def la ah, neex loolu yoonu kenn nekku ci yaag yàlla yaag sa bopp ak yàlla ak bis bañ ci ba ak ak ak sokuraas sa ak ak ak ak bàmmeel ba ba ba ngay ci ba dara dara dara réew ci lépp lépp mi ngi ci kanam din di nekk lépp ni ñuy gisee nii li ñuy gisee nii yëf yi noo ne noonu loola gën a leer foofu la gën a fese kon bu yàgg ba ma tàmbalee di laabiré euh, lam ma daa wax rek nan góorgóorlu ci njub ndax njub mooy buntub lépp lu baax njub mooy buntub lépp lu baax boo jubee xam sa diine yomb la jëfe sa boo jubul dara lu baax du du du du yomb waxuma laa laa sa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 te yàqu gënal la ah loolu rek la yàqu moom ku ko def yaa ko yàqu daa neex daa neex waaye dëgg gaa ngi fi hmm? ah ah ku yà ku mu neex nag yàqu waaye yàgg yàlla yàgg sa bisu sukuraat yàgg sa bisu bàmmeel yàgg ngay dem di bar sàq ba ba ba bés ba njiba ah, loolu loolu rek la loolu rek la nanu bu baax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 jub rek mooy lépp yooyu yëpp di rek la xeet yooyu yëpp yi ñuy gis yëpp njubadi rek la waaw waaw bu ko defee njubadi nag daal la daal lay andil nga sànq sa diine ginnaaw da nga ab jullit ngay woote waaw te yaa ngi ci njubadi da ngay daal di da ngay da ngay da ngay daal di sànq sa diine loolu njubadi loolu lay jëkk andil fekkee ne da nga jëm ci sëñ bi <laughs> boo <laughs> moom am na fu <laughs>